Sur Sud FM Sen Radio, le bloc d'info qui se poursuit. Seconde édition, bien sûr, à exactement 7h30 minutes. Adjaratou Seigneur est de retour en studio. Bonjour, Adjaratou Seigneur. Bonjour, Maria. Tu as ton café? Non, pas encore. J'ai pas de café ce matin. <laughs> Alors, d'accord. On va en prendre tout à l'heure ensemble J'espère. Alors, pour la seconde édition, on démarre avec le sud du La plateforme des femmes pour la paix en Casamance très inquiète. Euh, la plateforme qui condamne le débat ethniciste entretenu depuis quelque temps par des hommes politiques euh, au niveau des médias. La plateforme face à la presse exprime son indignation, invite l'État à prendre des mesures pour stopper net ces dérives qui pourraient saper la cohésion nationale. Ndeye Marie Thiam, de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance d'autant plus délétère du fait de propos et dérives à connotation identitaire, dangereux et jamais connus de l'histoire de notre nation. Ces piliers de stabilité sociale tissés depuis des millénaires entre les ethnies ont toujours fait baisser les tensions et les crises éventuelles sont automatiquement et socialement atténuées. Depuis quelque temps, des propos qui fragilisent ces piliers sont tenus du nord au sud du pays. Un discours irrespectueux de l'autre qui et minimise son prochain du fait de son appartenance ethnique. Et pire encore, nous assistons à une bataille rangée entre des associations identitaires qui jadis se devaient protection et respect mutuel. Ahuri, abasourdi et très inquiète Nous, membres de la plate plateforme des femmes pour la paix en Casamance, exprimons notre profonde consternation sur la multiplication des discours fractionnistes et de comportements ethnogéographiques enregistrés ces derniers jours dans la presse et par certains hommes politiques sont persuadés que ce genre de discours et comportements sont source de haine, mettant fortement en péril la sécurité humaine, singulièrement la paix et l'unité nationale. Condamnons la recrudescence des dérives socio-ethniques et sociopolitiques. Exhortons l'État du Sénégal et tous les porteurs de voix à freiner ces dérives. Exhortons les acteurs politiques, les leaders d'opinion et les hommes de presse à tenir de discours positifs, constructifs et de pacification. Et puis arrivée imminente de Karim Meïssa Wade au Sénégal selon les militants du Parti démocratique sénégalais, le PDS dans le département de Puy Tiwawan mobilise la base. Des séances de vente de cartes sont organisées, une occasion saisie par les libéraux euh, de la cité religieuse pour se prononcer sur le report des élections locales Babacar Sow. Restructurer le parti, se mobiliser et préparer le triomphal. Ce sont les termes de El Hadj Maodo responsable départemental du PDS à Tivaouane pour la préparation de l'arrivée imminente de Karim Meïssa Sénégal. La fédération départementale du Parti démocratique sénégalais à en même temps au mouvement de soutien à Karim lors de son emprisonnement que le PDS départemental de Tivaouane juge toujours arbitraire de venir se fondre dans le Parti démocratique sénégalais en achetant une carte de membre des responsables libéraux de la cité religieuse qui ne sont pas en phase avec le président Macky sur sa décision de reporter les élections locales. Une reculade du gouvernement qui, à les en va leur permettre de wan. pour élection yi xëy na leen a a d'appeler à la mobilisation d'ici l'arrivée de Karim Meïssa a signalé qu'une motion de soutien a été apportée au responsable libéral Amadou Lamine qui a assisté à cette mobilisation. Pour rappel, il a été arrêté, violenté et s'est retrouvé avec des fractures lors des violents affrontements suite à l'arrestation arrestation d'Ousmane Sonko. Tivawan Babacar Sow pour Sud FM. Restons dans la sphère politique pour parler de la création de nouvelles formations politiques dans le pays. C'est l'heure de l'alternance générationnelle tant théorisée selon Ibrahima Bakhoum, journaliste formateur qui pointe du doigt l'absence de démocratie interne et le non-respect de la loi sur la création et le fonctionnement des partis euh, politiques. Ibrahima Bakhoum répond à Amadou Moustapha Dieng. Ces nouveaux dont vous parlez, oui, ils sont là. D'abord, ils ont l'avantage d'être plus en phase avec les technologies de l'information et de la communication. Donc cette évolution-là, euh, tout se digitalise, mais aussi parce que cela correspond à une volonté demandée par d'autres jeunes à l'époque, ils disaient, alternance générationnelle. que nous sommes en train d'aller. Depuis quand vous n'avez plus entendu parler de congrès de parti qui se tient, il y a, moi, il y a toujours, on vous dit le bureau politique a décidé, ou encore trois personnes y a, quand il n'y a pas de fonctionnement d'instance, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la démocratie qui fonctionne, sauf peut-être faire, faire ce qu'on appelle un, système où tout est centralisé autour d'un bureau, et le bureau encore qui, choisit les membres du bureau, qui est dans le bureau, etc. Donc, s'il n'y a plus de congrès d'instance, s'il n'y a plus même de... de, de, de bon, euh, qui parle de renouvellement, en, en placement des cartes, etc. Mais en se mettant derrière un leader, le même petit groupe peut un jour décider, parce que le, le leader, le, le, chef du l'a voulu comme ça, bon écoute, celui-là, on le rétrograde, c'est le cas de Kefal Ou simplement on, on crée des conditions telles qu'il va être Mais là-dessus, je, je, disais à quelqu'un qu'il y a un effet boomerang. cest que Idrissa Seck avait expérimenté cela. Quand il a quitté ou quand on a renvoyé du PDS, il faut aller savoir quelle est la bonne, formule. Il, a, il est allé créer son Réumi. Il avait théorisé le toku, le toku, le toku, le toku. Maintenant, il est en train de se rendre compte que euh, son tuyau n'était pas suffisamment fermé. Donc, il a, il a pompé de là vers ici, en croyant à mais écoute, euh, bon, le grenier a un trou quelque part, et bon, il est en train également de perdre, comme il avait perdre, enfin, pas, il n'avait pris des gens ailleurs, la même affaire est en de lui tomber sur euh, la tête, et voilà, des gens sont en train de partir. Mm -hmm. Donc, l'opération Tohu, qu'il avait théorisée, est en train de se retourner euh, contre lui, donc les gens s'en vont. Mais tout cela, ça pose la question Ibrahim Bahoum, journaliste formateur, il sera tout à l'heure notre euh, invité. Une marche les 3 et 10 avril prochains à l'initiative du collectif des impactés du futur port minéralier vraquier de Bargny. Les impactés réclament des indemnités depuis maintenant 4 ans. Le collectif a fait face à la presse de Nizia Samb. La Les impactés du port minéralier et fraquier de Bargny-Sendou haussent le ton, dépossédés de leurs terres depuis quatre ans. Les membres du collectif n'entendent plus rester impassibles face aux lenteurs notées dans le traitement de leur dossier. Issa leur coordonnateur. L'État a jugé nécessaire d'implanter le port minéralier et fraquier et euh, ce qu'on attendait, c'était le respect de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Plusieurs démarches ont été faites auprès des autorités, mais jusqu'à présent, euh, il n'y a rien de concret. Le chef de l'État lui-même s'est prononcé sur le dossier quatre fois et avait promis donc euh, dès le mois de février 2019 que, que les gens puissent rentrer dans le fonds. Mais à notre grande surprise, quatre ans après, donc euh, rien n'a été fait. Une surprise générale alors que le port continue de progresser. Après 483 hectares, il prévoit d'exproprier encore une bande de 250 mètres d'extension. À saint et à Minam, le collectif prévoit une série de manifestations pour pousser l'État à respecter ses engagements. C'est aussi pour euh, a prévues pour le 3 avril et le 10 avril. Donc, on compte maintenir le rythme de ces marches. Parce que tant que l'État n'honore pas les engagements, n'honore pas la loi, l'application de la loi, donc nous serons debout. Parce que nous savons que le port est classé parmi les grands travaux de l'État. Quatre ans après les épisodes des bulldozers, les agriculteurs se voient aujourd'hui privés de leur principale activité. La pêche ne marche plus, autant de difficultés que vivent les chefs de ménage à Bargny, où la pauvreté s'est installée durablement. Bargny, Denisia Sambo pour Sud FM. Denisia Sambo, le collectif des mécaniciens dénommé Mbolo Moy Dolé, établi le long du mur de l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, demande au chef de l'État de leur octroyer une partie du foncier de Euh, du gouvernement pour installer des garages modernes Mor Diop secrétaire général du collectif Mbooloo mooy doole au micro de Birama Ndiaye. sommes là aujourd'hui pour dénoncer la façon, la manière donc les autorités nous prennent alors que nous ne l'accepterons pas. Le premier point, c'est de dénoncer aujourd'hui le manque de considération par rapport à nos autorités du gouvernement. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est des sites de recasement immédiat, des sites de recasement immédiat. Ça, ça, nous le voulons. parce que là où on est implanté, c'est pas bon. nous voulons La façon dont pas, c'est pas bon. le dernier, on a tout morcelé, tout morcelé. Et la part des artisans, nous devons, nous devons avoir notre part sur ce site-là. Et ce que nous réclamons, des sites de recasement. de un deux le plan de résilience force covid que le ministre avait injecté presque trente et quelques milliards suppose soixante milliards rien n'est abouti rien n'est abouti tout cela nous attendons euh, sur ce point-là je lance l'appel à monsieur le ministre de Pape Amadou Ndiaye ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel qui est sur ce truc-là donc il n'a qu'à gérer cet argent-là ça nous appartient il n'a qu'à nous donner c'est ça que ah nous appartient il doit Et puis depuis la pose de la première pierre de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, c'était le euh, au mois d'avril 2015. Depuis, le chantier traîne la section du syndicat autonome de l'enseignement supérieur de l'université du Sine Saloum envie de l'État à se prononcer sur les lenteurs des travaux de construction de l'institution. Les syndicalistes alertent l'opinion nationale et internationale ainsi que les étudiants et parents euh, des étudiants sur une éventuelle crise autonome du syndicat de l'enseignement supérieur de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack déplore les lenteurs qui sont liées aux travaux de construction des bâtiments. Selon les membres du dit syndicat, même la première pierre a disparu. Karalansi est le coordonnateur du syndicat autonome de l'enseignement supérieur de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass USEN. Actuellement, sur tous les sites, on nous a affecté des locaux provisoires. Par exemple, ici, c'est le CRFP qui nous a Donc c'est pareil à Kaffrine et c'est la mairie de Fatick aussi qui a mis à disposition ses anciens locaux à l'université et nous fonctionnons avec tant bien que mal. Et ce qui est extraordinaire, nous-mêmes, on ne sait pas comment on a fait pour assurer les enseignements jusqu'ici. Et comment appréciez-vous l'état d'avancement des travaux? Extrêmement Pour moi, même une tortue plus rapide que ce qui est en train d'être fait. Donc rien n'a commencé. La pose de aller un peu tôt, aussi, n'avance pas trop. Nous pensons que même d'ici ans, avec ce rythme, on ne finira pas l'université. Et c'est un enjeu aujourd'hui parce qu'on nous donne chaque année plus d'étudiants. C'est la première fois, vous pouvez vérifier, il n'y a aucune université au Sénégal, y compris Cheikh Anta Diop, qui a eu étudiants en l'espace de ans. C'est grave pour une université qui n'a pas de locaux et qui se démontré véritablement qu'elle tiennent à de tutelle Pour rappel, la pose de la première pierre a eu lieu en avril 2015. C'était en présence du président de la République Macky Sall et du défunt calife général de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niass. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. La section du syndicat autonome de l'enseignement supérieur de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass réclame par ailleurs la hausse de la subvention et du budget des ressources financières consistantes euh, le paiement intégral des salaires de 15 enseignants chercheurs recrutés la limitation des dépenses de prestige de meilleures conditions de travail et d'études une bonne gouvernance au sein euh, de euh, l'université du Sine Saloum entre autres revendications euh, de euh, syndicats euh, accès à l'eau potable le ministre de l'hydraulique Serigne Mbaye Thiam en visite de chantier à l'usine KMS 3 euh, se dit rassuré le l'approvisionnement correct en eau potable devrait revenir au plus tard le 20 mai les travaux avancent les clés de l'usine seront livrées sous peu selon le ministre qui invite cependant les populations pour l'heure sur la dangerosité du liquide sortant de l'usine une eau à ne pas euh, consommer. Gestion des inondations dans la banlieue de Dakar. Le ministre Oumar Gueye également visite de chantier hier. Le ministre des collectivités territoriales a effectué une visite de chantier et constate que les travaux dans le cadre du projet 2 avancent correctement à un taux d'exécution à moins de 30 euh, Oumar Gueye, le ministre des collectivités euh, locales, se dit pourtant rassuré, et ce à deux mois des premières pluies. Et puis, sixième et dernière première journée des éliminatoires de la CAN, le Sénégal reçoit ce mardi 30 mars les Swatini. Rencontre prévue à 16h au stade La Dior de Thiès. Le Sénégal est déjà qualifié, son adversaire éliminé pour le sélectionneur national de l'Eswatini. Son équipe veut sauver l'honneur au Sénégal. Quant à Aliou Cissé, il affirme que euh, le groupe a un bon état d'esprit, mais il fera tourner son effectif pour permettre aux autres joueurs, euh, surtout qu'il a convoqué euh, de euh, pouvoir s'exercer. Euh, rappelons que le Sénégal reçoit ce mardi les Swatini rencontrent à 16h au stade Lat Dior euh, Maria. invité. Sud l'invité du jour. Et l'on parle de la création de nouvelles formations politiques euh, au niveau du Sénégal. C'est l'heure de l'alternance générationnelle, nous dit notre invité Ibrahim Bakhoum. Il est journaliste et il est avec Amadou Moustapha Dian. Vous êtes euh, journaliste et formateur. Avec vous, on évoque la question des partis politiques. Alors, dites-nous, assistons à une nouvelle reconfiguration politique au Sénégal avec euh, la création de ces nouveaux partis et l'émergence de nouveaux leaders. En l'occurrence, la dernière création d'un parti politique avec Déthié Fall, le Parti républicain pour le progrès. On a beaucoup parlé à partir de, de, déjà à la veille de, de 2007 à la présidentielle de mai. À la veille de ça, on parlait déjà de l'alternance générationnelle. On, on, on, théorise cela depuis 2007. 2007, j'ai bien euh, à la veille d'une présidentielle euh, que Boad finalement avait gagnée. Donc depuis lors, on parle d'alternance générationnelle. Et les jeunes qui, à l'époque, avaient des 10-15 ans, qui entendaient ça, sont aujourd'hui ces leaders-là dont vous parlez, pour, dans certains cas. c'est un c'est eux qui émergent ou alors ils sont en train d'accompagner des gens légèrement plus âgés qu'eux mm. c'est ça qui leur donne de la chance de ce point de vue-là donc les ce que ce, la, la façon traditionnelle de faire de la politique est en train de changer mm-hmm. euh, on ne fait plus les grands meetings euh, où on rassemblait des milliers de personnes etc maintenant c'est plutôt des petits regroupements de quartiers avec quelques dizaines de personnes, quelques 200, 300 personnes à peu près, mais surtout du porte-à-porte. -porte. Et le reste est fait avec des réseaux sociaux qui mobilisent énormément. C'est pourquoi je dis, ces nouveaux leaders dont vous parlez, oui, ils sont là. D'abord, ils ont l'avantage d'être plus en phase avec les technologies de l'information et de la communication. Donc, cette évolution-là, euh, tout se digitalise, mais aussi parce que cela correspond à une volonté demandée par d'autres jeunes à l'époque, ils disaient, alternance Président Bersa, que nous sommes en train d'aller. On a vu justement que Détiefal a quitté son parti d'origine, le Réumi, à la suite euh, d'un désaccord de vision. Peut-on dire qu'il y a une absence de démocratie interne au niveau de ces partis-là, ce qui conduit souvent les voix discordantes à quitter le navire Depuis quand vous n'avez plus entendu parler de congrès de parti qui se tient. Il y a, toujours, on vous dit le bureau politique a décidé, ou parfois deux personnes Donc, il n'y a même, il y a, pas de fonctionnement d'instance, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait de la démocratie qui fonctionne, sauf peut-être faire, ce qu'on appelle un, système où, tout est centralisé autour d'un bureau, et le bureau encore qui, qui choisit les membres du bureau, qui est dans le bureau, etc. Donc, s'il n'y a plus de congrès d'instance, s'il n'y a plus de... de, de, de bon, c'est vrai, j'ai euh, PDS qui parle de renouvellement, en, en, placement des cartes, etc. Mais bon, on sait généralement comment les cartes sont placées. Généralement, ce qui se passe, c'est quoi C'est que il y a quelqu'un qui a de l'argent, qui achète pour pour 20, pour personnes en disant voici les militants de Zemnon. En vérité, c'est pas des militants qu'on a, c'est juste des gens pour qui on a acheté la carte. Et voilà, on dit j'ai placé 100 cartes, vous n'avez rien placé du tout. Bon, c'est le même petit groupe peut un jour décider, parce que le, le leader, le, le, chef du parti l'a voulu comme ça, bon écoute, celui-là, on le rétrograde, c'est le cas de Dikefal, ou simplement on, on crée des conditions telles qu'il va travailler. Mais là-dessus, je disais à quelqu'un qu'il y a un effet boomerang. C'est-à-dire que Idrissa Seck avait expérimenté cela. Quand il a quitté ou quand on l'a renvoyé du PDS, il faut aller savoir quelle est la bonne, formule. Il, a, il est allé créer son Réumi. Il avait théorisé le toku, le toku, le toku, le toku. Maintenant, il est en train de se rendre compte que euh, son, son tuyau n'était pas suffisamment fermé. Donc, il a, il a pompé de là vers ici, en croyant à mais écoute, euh, bon, le grenier a un trou quelque part, et bien, il est en train également de perdre, comme il avait fait perdre, enfin, pas, il n'avait pas, comme il avait pris des gens ailleurs, la même affaire est en de lui tomber sur euh, la tête, et voilà, des gens sont en train de partir. Mhm. Donc l'opération Toku qu'il avait théorisée est en train de se retourner euh, contre lui. Donc les gens s'en vont. Mais tout cela, pose la question de la démocratie interne. Il n'y en a pas du tout dans les partis en général. Alors un énième parti qui vient s'ajouter au lot déjà important. On parle de 300 et quelques partis de revoir cette création de politiques et aussi de faire jouer la réglementation en vigueur? Bon, comment réglementer? Parce que nous sommes en démocratie. La liberté d'association c'est une association de droit privé. Tout le monde peut, créer. L'essentiel, c'est que quand vous décidez de créer votre parti, normalement, il y a une enquête au moins de moralité, ensuite, une, voir la personne, est-ce que elle a le droit d'avoir un parti Est-ce qu'elle a le droit de s'associer Est-ce qu'elle n'a pas, elle, elle n'est pas politiquement, euh, comment on appelle encore, handicapée par la loi, etc. Si tout cela est réglé, vous créez votre parti. Personne ne peut vous l'interdire. Maintenant, il y a un règlement sur le parti. Par exemple, est-ce que vous avez renouvelé vos instances Ensuite, est-ce que vous avez, en matière d'argent, d'où viennent vos, vos, fonds Est-ce que vous avez de déclarations-là Vous devez le faire Comment les dissoudre Et je ne sache pas que le, le PS l'ait fait, le PDS n'a jamais fait. On attend encore de la paire ou de, je ne sais pas que les parts de Benoît qui le fassent. Personne ne jamais fait à ma connaissance. Je dis bien à ma connaissance, parce qu'ils le font, je ne suis pas au courant. Mais s'ils ne le font pas, c'est déjà une cause de dissolution peut-être. Mais puisque tu ne peux pas dissoudre, ces gens, tu dissoudres la personne. Et quand on dissout Enfin, peut-être que quand on va arriver à 651 partis, bon, on va arrêter. Donc, c'est facile d'avoir un parti. Euh, il suffit de dire, bon, écoute, bon, je veux créer ma parti. Vous, le créez, vous allongez la liste des mais en vérité, vous, vous représenterez mieux. Parfois, c'est des partis à, quelqu'un les appelait partis cabine euh, télécentre, parce que les télécentres n'existent plus maintenant. Donc, c'est juste des partis de salon. Des Mais que voulez-vous si ça vous coûte de le faire eh, Écoute, euh, voilà, ça, ça, fait un nombre qui est là. Vous, euh, eh, vous, dire, à la prochaine élection, je vais aller avec un Si je pense qu'un tel peut gagner, je vais avec lui. Donc ça fait du yoba les ça fait des, des qui ne prennent aucune initiative d'eux-mêmes. qui sont juste accrochés au basque de quelqu'un d'autre qui est plus populaire ou plus visible. Parfois, la visibilité n'est pas forcément la popularité. Faut qu'on le dise aussi. Mais sur les, les 320, les 340, je ne sais pas combien, il y en a dont vous-même n'avez jamais entendu parler, ni de leur leader, ni de la formation en général. Et ils sont nombreux. Ils, ils, ont, ils ont un nom et un numéro au ministère de l'Intérieur. vous voulez savoir, moi, je vous donne mon point de vue là-dessus. Des partis qui ne sont jamais allés à une élection, on en compte déjà beaucoup. Cela n'ont gêné personne. Ils prétendent avoir appuyé quelqu'un, ils prétendent lui avoir apporté des voix, parfois rien du tout. Et on vous dit qu'il y a telle coalition qui est là depuis des années, etc. C'est la coalition qui soit restée le plus longtemps possible, etc.

Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce numéro 118 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Alors Mariem, aujourd'hui, moi je vais être euh, euh ton, ton auditeur ton auditrice, pardon, euh, de, de, Facebook euh, ou d'où tu veux, parce que c'est moi qui vais te poser euh, la question qui me taraude. Euh, j'ai rencontré beaucoup d'enfants, je rencontre beaucoup d'enfants dans le cadre de nos activités, même mm -hmm. en centre de loisirs, etc., ou des enfants qui n'arrêtent pas de nous dire je suis canadien, euh, je suis italien, je suis français, euh, ma sœur est née aux États-Unis, mais moi je suis né à Bangkok. <laughs> Et, et, et pendant qu'ils nous disent ça, je me rends compte qu'ils qu n'ont aucune référence par rapport au Sénégal ils s'enorgueillissent d'être nés ailleurs et d'avoir une nationalité d'ailleurs. Alors moi, ça m'inquiète beaucoup et je voudrais que tu me dises pourquoi il est tellement important que les parents inculquent à leurs enfants cet amour du pays, même s'ils sont nés ailleurs. Bon, alors il faut peut-être aller chercher le problème aux racines, puisque nous savons qu'il y a des parents qui, euh, qui font exprès de faire naître leurs enfants à l'étranger, puisqu'ils pensent que avoir une nationalité étrangère donne plus de chances à leur enfant de réussir. Et donc forcément, l'enfant va être euh, va baigné dans cette idée, va grandir avec cette idée, et donc comme tu dis, va s'enorgueillir de cette nationalité étrangère. Pourquoi est-ce qu'il est important parce que en fait, tout, tout pays investit dans ses enfants, dans l'instruction dans de ses enfants, parce que ce sont ces enfants-là qui vont ensuite diriger le pays et qui vont en, surtout faire avancer le pays par leurs inventions, euh, par leurs innovations, euh, par aussi justement cet amour euh, inconditionnel de leur terre qui va faire qu'ils vont avoir envie que cette terre aille plus loin, toujours plus haut et soit peut-être au devant de la scène. Euh, je pense que ici au, au Sénégal, puisqu'on parle vraiment de notre pays, il y a effectivement dans toutes les couches de la société un défaut de cette de, de cet amour inconditionnel de notre pays et je dirais peut-être même de d'un d'un espoir en fait parce que les les les, les enfants sont porteurs d'espoir euh, et donc les les enfants, nos enfants, beaucoup de nos enfants rêvent plutôt d'ailleurs, rêvent de d'exploser ailleurs, rêvent de briller ailleurs parce et, et parce que on leur fait rêver d'ailleurs et parce que aussi euh, tout est très euh, Euh, interconnectés. Même euh, notre, euh, notre télévision parle beaucoup de cet ailleurs. Internet déverse des images de cet ailleurs aussi, qui est sublimé et qui donne l'impression que chez nous, eh bien, ce n'est pas très bien, ce n'est pas très cool, comme diraient peut-être les jeunes, et que c'est beaucoup mieux justement dans d'autres dans d'autres pays où ils rêvent d'aller. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons des jeunes enfants, parce que c'est maintenant de jeunes adolescents de, de, de fortune, hein. fortune et, et, qui vont donc braver tous les dangers de la mer pour essayer d'aller euh, euh, vivre, ailleurs. Et charge à nous, parents, de d'essayer, en tout cas avec toutes nos forces, de, de, de redonner à nos enfants l'amour de leur pays pour que, même s'ils rêvent d'ailleurs, parce que tous les jeunes du monde entier rêvent d'ailleurs et c'est quelque chose de sain, eh euh, qu'ils sachent et que ce soit fiché dans leur cœur en tout cas que leur vie doit être faite fait euh, ici et euh, que leur, euh, leur force productive doit appartenir à leur pays. Alors maintenant, moi tu sais que c'est un sujet qui me fend vraiment le cœur, qui me tient à cœur. Euh, comment comment le faire Comment en fait leur inculquer cet amour du pays Déjà, je pense qu'il faut déjà que les parents l'aient et que les parents soient <laughs> convaincus déjà. Mais comment le faire et en convaincre les jeunes que même s'ils devaient partir, il faudrait qu'ils reviennent, qu'ils sont en fait eux les acteurs euh, de leur nation mm. et qu'on devrait, nous, euh, songer à être l'ailleurs mm. super cool mm. des autres. <laughs> oui, tout à fait. Bon, je crois que le Sénégal est déjà d'ailleurs assez cool d'autres <laughs> pays, euh, mais il faut continuer de le de cultiver ça. Je pense aussi que euh, ce que ce que les parents doivent construire au départ avec leurs enfants, c'est simplement déjà de leur faire découvrir leur pays parce que très souvent les les enfants ne connaissent pas leur pays euh, et euh, ils ne savent pas ce que nous avons créé, ils connaissent mal notre histoire aussi, euh, ils connaissent mal même notre géographie, ils que des gens euh, viennent regarder en ayant parcouru des, des milliers de kilomètres. Euh, partout dans le monde, j'ai très souvent entendu les gens s'émerveiller sur, par exemple, les très beaux paysages de la Casamance. Et, et beaucoup, beaucoup d'enfants à travers le pays n'ont jamais vu la Casamance, n'y ont jamais mis les pieds, n'ont jamais vu les très belles chutes d'eau du Sénégal, les très beaux, euh, les très belles réserves d'animaux. Euh, tout ça, en fait, euh, euh, contribue à, à donner donc l'amour de son pays. Quand je prends l'exemple des Américains, Américains, par exemple, ils voyagent assez peu dans le monde parce qu'en réalité, ils vont très souvent euh, visiter mm -hmm. leur propre pays mhm. euh, ils vont privilégier cela et c'est ça qui va leur inculquer l'amour du pays. Et donc, je crois que pour cette première émission et pour euh, ce premier conseil que je n'ai rien contre aller visiter le Canada, les États-Unis ou Dubaï, mais je crois que quand même, quand on a des vacances euh, avec les enfants, il faut privilégier d'aller visiter, ville du Saloum, euh, pourquoi pas euh, Saint-Louis, pourquoi pas d'autres villes qui sont très très belles euh, au Sénégal, qui sont chargées d'histoire aussi. Et c'est déjà une première étape vers construire l'amour de sa terre. Et en parlant des Américains, Mariam, tu sais qu'on les on les salette à, à, en leur disant que c'est la plus grande nation du monde, euh, qu'ils sont les premiers du monde, qu'ils sont supérieurs à tout le monde. Et, ils, y croient et ils se lèvent et construisent leur pays. Donc ce n'est qu'une première émission. Je pense qu'on aura l'occasion de continuer là-dessus. Je vous remercie, chers auditeurs, et à très bientôt. Sud FM. il seen rajo ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diwaan ngeen ñuy déglu itam en direct ci YouTube salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. maaleykum salaam soxna nga xam ne rek moo di Casamance mu mel jigéen ñi jaaxle nañu. Ah, kay dañoo taxaw temm doon jànloog taskatu xabaar yi gannaaw ba nga xamee ne dégg nañ ay kaddu yoo xam ne yi ci média yi asalaamaaleykum mbokk yi ba ñu leen nuyoo wala tam ni nga xam ne tam dañuy yëngu ci wàllu politique tam di faral di wax daal loo xam ne mën naa indi ay jafe-jafe ak i benk ña ngi dund ci ni senegal demee ndax démb ak barki démb loolu kenn xamu ko fi woon kenn ci ñoom kook moom la ñu duppee Ndeye Marie Thiam waxtaan ci ak benn Michel di li tax tey ñu yëkkati suñ suñu kàddu mooy lu xew suñu biir dëkk senegal fan yi ñu weesu ñu dëkk fii ay kàddu yoo xam ne daf ñu tiital mu naqadi ñu metti ñu lool mu doon ay problème yoo xam ne ñun mësuñu koo dund Sénégal ndax fii biir Sénégal dañu xaw xam li ñuy woowee cousinage à yi diggante séeréer ak joolaa diggante séeréer ak pël et cetera njaay yi ak jóob yi ki loolu lañu ñu dund ki loolu la ñu yaree suñu mag yi bàyyi ñu fii benn héritage boo xam ne day dëgg day defar Sénégal loolu mooy suñu ciment social waaye temps yi ñu weesu nit ñi yëkkati nañu ay kàddu yoo xam ne doy na waar trop mu nga bëgg a yàq loo xam ne lu ñuy ooye cohésion sociale bi moo tax ñu jóg di alerter encore une fois di au population bi pour ñu dellu si seen xel ñu xam ne Sénégal ñu ñoo ko bokk Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar loolu la ñuy wax ba su nekk ñu dëgg ko ki discours yi dañ ko war a dund dund ko ci suñuy defin dund ko ci suñuy comportement dund ko aussi ci suñuy kàddu ñu ñaawlu bu baax a baax li fi xew université de Dakar te mosu fay xew di ko ñaawlu bu baax ñuy oo attention di au Sénégal lépp pour que vraiment population bi ñu jóg ci delloo siwaat suñu xel vraiment ñu dund li ñu doon dund parce que loolu mooy Sénégal Eh, ci eh, ci yeneen i fa yi ci wàllu xabaar yi tam maanaam ko kii di Karim sa wadd eh, fii ci biir Sénégal am na ñu koy wax itam di ko ruumanaat PDS nag ñoom ca département bu Tivaouane ñoom ñu ngi dajaloo xaat ñoom daal di yëngal seen i mbir ngir xool daal nu ñuy jaayee seen i ay carte di am tamit organisé bu baax a baax ñu ne nag itam Euh, fa tax jëlaale nañ ci mbir yooyu la daal nee nag bëgg nañu nag daal yëkkati nañ ci ay kàddu nag daal ci dàq gi nga xam ne dàq nañ ko élection yi Babacar Sow dellu si Karim Meïssa Wade ci réewum Sénégal fédération départementale bu Tivaouane mi ngi bu baax a baax di ñaanaale itam ñi nga xamee ni ñoo di mouvement de soutien yi ñi nemmeekoon ba ñu tëjee Karim Wade ci kaso bi PDS départemental bu Tivaouane di leen ñaan ñu daal day ñëw dugg ci biir parti yi restructurer le parti que dañoo xool ni am na ñu bëri ñoo xam ne 96 ak léegi ba ñu renouveler parti bi amuñu quatre membres bokkuñu ci benn structure xool nañ tamit am na injustice bi ñu teg Karim Wade ay milliers de mouvements de soutien yoo xam ne mos ñu politique fenn ñëw du ko jàppale ñoo nit ñi bëgg ñu bokk ci parti bi bokk ci bureau bi di décider non beneen bi ci toppit ñu organiser waat parti bi ba nga xam ni suba duñu bett duñ demee élection parti bi mu am fa ay liste yoo xam ni kenn du ko laam-laamee la fay am bi ci ba Karim Wade day ñëw suba ñun ñëpp ànd ak moom mu dem pale jaay responsable la PDS yoo xam ni ñu ngi nekk ci dëkk bu sell bi ànduñu benn yoon ci li nga xamee ni président Macky dafa taxaw témbe ni dafay daal di dàq élection yi di loo xam ne li dina leen gën a may doole ñoom suñu nemee ko ni gouvernement bi dafa dellu tig ginnaaw ci li nga xamee ni moo di wote yooyee El Hadj Malick Sy moom moo di secteur général départemental bu PDS ci diwaanu Tivaouane jàngat tempête la wax tempête yooyu dañuy renforcer wu li tourbillon bi gën a tourner rek ñuy di gën a am doole defe naa mu fi mujjee mbooloo mi ngi fi gisoon bari na mais mbooloo mi ngi fi gis tey mat na ko ñeent am de defe bi woote nga gis lii fii bariwul ci Tivaouane kon nga xam ni du yéexee tuuti duñ demee jëmale ko xaw ma 2022 ouragan def bañ duñ koy balayee sax du ko xam da koy bett loolee tax na sax ba waa fédération départementale Babacar soo leen ca jokkoog yéen pour Sud FM. Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax marche boo xam ne bi doxu ñaxtu lay doon ñetti fan ak fukki fan ci weeru ma weer avril wala nga xam ne moom la ñu dëgmal muy waaj a teru loolu nag ñi nga xam ne ñoo ñoom la yëfi yàqal ci wàllu jëm ci port boo xam ne bi daal wala bon wala boog benn pont bu ñuy mu nekk nag fële ca Bargny loolu nag moo leen moo leen metti lool ndax ñi mu yàqaloon ba léegi ñeenti at yàllaa ngi nii dara loo xam ne ci ndàmpaay yi jotuñu seen suuf ak yu demee noonu Denisia Denisia Sambou daan ci dikkaat euh, léegi ci li nga xam ne itam. deux séances de Sendou de Minaf de Bargny est prêt pour ces deux mars c'est notre combat quoi. ñi ci port minéral yi ak fracking wu Bargny a ngi fësal seen nakar ñeenti at gannaaw ba nguur gi jëlee seeni suuf ba léegi du benn ndàmpaay bu ñu jot ñuy nakarlu yéexaay bi ñu nemmeeku ci seen dossier Issa Gueye mooy seen coordonnateur. donc port bi port bi dañ ko classé ci les grands travaux de l'État mu demee ba koy installé avant ñuy démarrer sax waroon nañu dalal xelu ñi nga xam ne jël nañu seen suuf war nañu dalal ñi nga xam ne dañ doon liggéey war nañu dalal ñi nga xam ne dañ leen ko a jëlee ak ñi nga xam ne projet bi dañ leen war a yëpp dañ si dara. waaw ñun nag ñu koy ñaawlu du loo xam ne tegoon nañ ko état si projet bi. jamono ji tabaxu port bi mu ngi wëyandil gannaaw ñeenti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñetti hectares yi nga xam ne nag jël na ko fas yéene na amaat extension deux cent cinquante mètres ca Sendou ak Minam waaral collectif bi fas yéene wàcc ci mbedd yi ngir pousser nguur gi mu respecter engagement am. nous allons entraver les travaux bëgg na gaaw projet bi. ñu wàcc les premiers barils de pétrole ñu ngi dégg naan deux bëgg parce que guddeeg bëccëg ñu ngi liggéey ñi nga xam ne ñoo moom suuf si ñi nga xam ne ñoo fi doon bay mais ñu jox leen li leen loi may loolu rek la ñu demandé demandé ñu leneen président mais ñu ngi lay ñaan nga respecter engagement yi nga xam ne moom la yoon maye étude d'impact environnemental yi nga taxaw si plan de réinstallation pour la dignité des personnes jot gannaaw bi bulldozer yi jaare foofu yàq seeni tooli kànja yépp baykat yi amatuñu activité napp yi tamit doxatul jafe-jafe yu bari yoo xam ne njaboot yi a ngi koy dund ca baax ñi fa nga xam ne nag ndool mi a ngi fay gën di yokk baax ñi Denisia Sambo pour Sud mbootaay gi nga xam ne ay mécaniciens lañ duppee seen bopp mbooloo mooy doole te nekk tamit ci miiru aéroport Léopold Sédar Senghor bi ne daal dañuy wax rek njiitu réew ci boppam Euh, mu fexe rek daal ba euh, jox leen béréb yoo xam ne daañu fa mën a liggéey ndax itam daal nag ñoom def fa sax seen garage daal yu moderne yu yees wees pàq euh, tamit ndax daal ñoom seenu liggéey seenu xarala yegg na foofu le Euh, te taxawoon nañu itam ne mécaniciens yooyu daal wax itam ministre bi ñu dénk wàllu artisanat euh, nga xam ne moom euh, ba léegi gisaguñ ci ñoom moo ñoom dara loo xam ne teg na ko ci seen i yoxo ñu xoolaat nag mbiri seen mbir nag ñu ci ay jafe-jafe bi ñu jàlloog taskatu xabaar yi lañ ko wax kenn ci ñoom ku tudd Cheikh Fall moo jiite mbootaay googu waxtaan na ci ak Birama Ndiaye. bi ci njëkk mooy palaasu liggéeyukaay yi nga xamante ne si moom lañu yàgg demande état te fi nu nekk bokk ci moomeelu état te nu gis ne fi nu nekk xat na lool te état moom li ci ginnaaw fi nu nekk te borom kër yi ñu ngi tabax jege nu lool ba xat nu lool ba nga xamante ni yoon wi day déborder ñu bokk ci li ñuy demandé état bi mooy ginnaaw miir bi mu dollil nu ci ci li mu nu joxoon donte li mu nu joxoon moo nu ko joxoon fi nu nekk moom moo nu ko daggal waaye nag xat na xataay boo xamante ni si bu nu joxoon ci biti moo nuy gënal kon donc lim nu jox na nanu yaatalal ci biir ndax bëgg nañ ko def ay garage moderne yoo xamante ni si képp ku fi ñëwatee di nu respecté dafa toll ci ne nag nit boo koy puus ba mu sës ci miir bi amatul fu mu jëm bu yàggee sa kaw la jëm lii bokk na ci jéego yi bi ci des mooy point bi wisel yi nga xamante ne jaar na fi nga xamante ne avant covid bi banque mondiale yónnee na fi trente milliards mu jëm ci artisans yi pour ay formation mu jëm ci ndaw yi trente milliards yooyu ministre Dame Diop la fekk ministre Dame Diop bi covid bi demee ba ñëw banque de la république Macky yooyu ñu jaare ko ci wisel mono yi muy ñu bari ci ñun jotuñu ci ndax lim bi ñu joxe mooy dañ ne 30 mille personnes joxe te 30 bi ñu defee suñu calcul 4 milliards moo dem 500 des na ci wisel yi léegi 25 yi nga xamante moom la fi Amadou ministre bu bees bi fekk 5 yi mu joxe léegi nag Dame Diop 35 yi moom dafa yóbbu 10 yoo xamante ñun xamuñu fu mu dugg ministre Dame Diop kon donc 10 lan bëgg mu wax nu fan la dugg ndax Macky président Macky Sall daf ko joxe pour ñun kon daa war a si ñun loolu bokk na ci li nga xamante ne si moom la demande demandé pour mu leer troisième point bi mooy formation yi nga xamante ne si DER mi ngi koy joxe mi ngi koy def ak fonds yi formation yooyu ñun dañ cee gisul sunu bopp ndax bu nee trente cinq ans jëm suuf te ñun li ëpp ci ñun di ay formateur ëppal trente cinq ans jëm ko jëm kaw kon ñun ban formation lan nu mën a defar coalition bii nag li ko mooy yàgg na ab yàgg taxawal mécanicien yi te mécanicien yi mënuñ cee bopp ndax ministre yu leen di woo di leen di corrompre ba tax duñ wax jàngoroy mécaniciens yi léegi nag ñun dañu sonn dañu tàyyi ci loolu ba tax mbooloo ñoom ñoo ni pesum kanam borom a koy fajal boppam moo waral lii ñu def te xam ne ci réew mi la ñu bokk nan nu bàyyi xel ci réew mi la ñu li état bi joxe nay ñëw ci ñun te président Macky Sall na xam ne trois yi muy wax ñun amuñu ci yaakaar bu dee daa jaare ci soixante cinq milliards yi fi jaare woon duñ ci am yaakaar ndax ko gis li aju woon ci eh, tegu xeeru eh, université Sine Saloum bu El Hadj Ibrahima Niass eh, ca Kaolack mu ngi amoon ci avril 2015 boobu ba léegi nag itam liggéey bi daal dafa xaw a yeex lool syndicat bi nga xam ne moo nekk ci wàllu njàng mu kawe moom université yi bu Sine saalum itam ne ñu état bi nag war na ñoo nañoo yàbb ci yeexaayu yëf yi daf leen a jaaxal lool Mamadou Camara syndicat bi boot jàngalekat yi nekk ci université Sine Saloum El Hadj Ibrahima bu Kaolack di SAES ñoom kat di ñaawlu liggéey bi noonu la doxe ñu ngi ko gam-gam leeg doxinu kakataar muy Kaolack Kaffrine ak Fatick Karalansi moom mooy coordonnateur u SAES université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack. locaux yi dañ fi nekk provisoirement. sunu locaux ñu ngi koy xaar boobu tabax ba léegi ministre bi ñëw na fi ne ñu waxoon na sax dinañ commencé bu Kaolack. waaye dara avancé aussi même yeneen sites yi xam ne xaw na avancé tuuti sax kenn xamul fu mu taxaw dafa sooxe. maanaam demul dikkul Fatick. noonu la fondation bi léegi mu mët at naa chaque deux mois benn poto la ñuy taxawal nga dem fële tamit soo xoolee ouvrage bi foofu tane na génn na am na ay poto waaye foofu tamit xel jàppagul ne mën nañ fa dugal ay nit ak mooy concerné affaire hébergement bi prise en charge UFR yi dañu tas am na yu nekk Fatick am na yu nekk Kaffrine ñoom ñëpp même jàngoor la mooy que budget yi jox doyul jàngalekat yi yi fa nekk doyuñu matériel didactique yi ñu war a yor di ko jàngalee doyuñu vacataire yi ñu fiy indi nit ñeen di yorin ak gunge bi baaxul des na lu bëri ñu gis ne budget bi war nañ ko voté pour lalu ñu xaalis bi xam ne moom lañ war a def ci ñooñu di ñëw pour bu ñu ñëwee ñu rembourser juróom maanaam 2015 ci teewaayu président Macky Sall ak tamit ci teewaayu ki fi ne newoon xalif général Medina Baye di Cheikh Ahmed Tidiane Niass Kaolack Mamadou Camara Sud FM Mamadou Camara ca Kaolack section syndicat autonome jàngalekat yooyu sax euh, fi mu toll nii kii di euh, Karalansi mi nga xam ne moo di coordonnateur bu SAES foofee euh, ca campus bu Kaolack ak tamit Fatick mu ngi nekkoon ci mbootaay googule ci xabaar yi ba léegi ci tënku xabaar yi li aju tamit ci li nga xam ne moo di kër Momar Sarr 3 bi ca Thiès itam ministre bi ñu dénk wàllu hydraulique Serigne Mbaye Thiam mi ngi demoon doon fa doon nemmeeku ji liggéey bi fi mu ci jot a toll ci yaakaar ne daal fekk weer ci kanam wala jàpp ñaar weer yëf dana daal di sotti waaye nag mu ngi doon askan wii tamit daal ñu taxaw bu baax a baax itam eh, rek eh, daal ci eh, yi nga xam ne mooy jóge ci usine bi ndox yooyu itam ñu bañ ko jëfandikoo liggéey bi aju yi tamit ci li ñu duppee projet 2 bi itam mu ngi dem bu baax a baax itam ci ministre bi ñu denk wàllu collectivité territoriale yi Omar Gueye demoon itam di xool visite bi maanaam liggéey bi fi ñu ci jot a toll itam daanaka téeméer bu nekk fanweer ya fi ñu toll nii ñanga ca gannaaw ba nga xamante tam jort nañ ne balaa yàgg dana am ay mbir yu bari yoo xam ne yii dana daal di sotti foofule ci wàllu liggéey boobu la itam li aju tamit eh, daanaka eh, eh, li aju tamit ci wàllu kan bi éliminatoire bi fi ñu toll nii. Euh, daanaka tey ji moo ci mujj Sénégal tam daanaka matcham bu nit bi ci Eswatini moom lay daal di dajeel euh, su ko defee yi tamit loolu bu ñeenti waxtu jotee lay doon fële ci stade Lat Dior Sénégal moom déjà qualifié na sax ba noppi euh, ci li nga xam ne moo di coupe d'avril bi nga xamee ne coupe d'Afrique bi nga xamee ne moo di am fële ci Cameroun ci atum mille vingt 2022 joueurs yi tamit lim bi nga xam ne Aliou Cissé woo tamit ñoom it jot nañu yegg si foofule soxna Maria fukki minutes ak ñett moo feggu ci Euh, benn euh, juróom-ñetti waxtu xam naa ne da ngay daal di euh, wéyandi ci li desandi ci wàllu xabaar yi ak tamit ñoom Ibrahima Bakhoum ak la ci aju. ni nga ko waxee noonu la Hadj Maodo Faye sant nañ la bu baax te gërëm la bu baax baax ni nga ko waxee Ibrahima Bakhoum moomee journaliste la di formateur yi itam mu ngi nekk sekk waxtaan ak Amadou Moustapha Dieng jëm ci li nga xam ne rek moo di li ñu di dippee parti politique yeeg ni ñu leen di formé ci réew mi. Sud FM ganu bés bi. yow journaliste formateur nga tey ñu waxtaanee wàllum parti politique yi nga gis ne fu mu nekk ni am na ay ndaw yu jug di dugg ci làng gi di créer seen parti politique yu mel ni Déthié Fall daal di créer parti républicain pour le progrès ndaxam dañuy gis ne fu mu nekk dafa am benn xeetu coppite maanaam alternance générationnelle bu ñëw parti yu bees ak ay xale yu ñëw samp bëgg jël seen place ci biir langu politique bi waaw loolu moom dafa bokk ci li jaadu li ñuy wax ne ji yeesalaat aayul fenn gis nga boo ko xoolee ci at yee ci gannaaw booy jamonoy 2007 yooyu ba ñuy waata dem ci présidentielle 2007 bi nga xam ne ji naanaam mujj gi euh, président Abdoulaye Wade moo ko gañe woon waaye ba ñu agsi ba ñu laajte agsi 2007 diggante 2000 2007 doon nga dégg ay ñi doon wax ay jeune leader ñu ay ñoo xam ne ndaw lañ waaye am lu ñu am xereñ gi ñu am ci politique am xam-xam bu ñu am ci politique commencé woon ci dugg di wax ne yeesal bi kat dafa yoon maanaam nañu euh, mais nañ yeesal li ñuy wax euh, maanaam ñi nekk ci politique bi daal am na ñoo xam ne ji waroon nañ mën a dem retraite nag jotoon na parce que yëf yi dafay am daal fu mu toll ndaw moo koy gën a mën mag ñi loolu xalaat la boo xam ne bu fi jaar bu fi dox boobu nag bi mu fi nekkee ñu dem ba ci am ñoo xam ne ji am ko 2012 ñu ñu jële fi nekkoon Ablaye Wade waaye nag ñu ñëw ba tey des nañ desoon nañ mooy ne dañu foogoon ne buy ñëw ku bees sàq lay doon mais kii mu ñëw ba noppi kooku tamit moom waxuñ ci moom dara nekkoon ne président Macky Sall fi mu nekk nii léegi nag ñoo waxoon ne dañu fi bees am si ñoo xam ne dem nañ sos seen parti bopp am si ñoo xam ne sosuñu parti waaye fa ñu feeñ nekk fi ñu nga fay yëngatu yëngatu nag la mu jur mooy kenn ku nekk boo kontaanul nga dem def sa parti def sa parti yaa ngi wax ñetti téeméeri parti rek du topp ñetti téeméeri parti bëri na lool ci réew mi ni Sénégal waaye ñenn ñi leen ci yóbbu mooy lan mooy ne ji il faut ñu soos parce que fañ nekk dañ faa xat neexatu leen ñu bëgg dem feneen buñ bëggee dem feneen nag li lee mu indi xëccoo li lee mu indi coow waaye loo ci mën di dégg il faut mu li ñu wax ne euh, daf lañ bëgg nañoo feeñ ñu ñu ngi agsi te agsee moom dañuy wax ne ji euh, borom karaw gu weex ak borom karaw gu ñuul bu fekkee ne am na leen looy natt boobu daanaka euh, mu ngi dafa am ñàkkum démocratie interne ci biir parti moo tax baat bu jib rek te àndul ak borom parti lu mu bëgg rek dafay faral di génn parti boobu dem créé parti boppam xam nga dafa am loo xam ne sax bu dama ko fàtte wax di nga li ñu ooy li mu parti ba na ñetti téeméeri parti lu topp xam nga da na yëpp am na si ñoo xam ne tur ak tur rek fa ne tur rek parti sax demoo fa tur rek fa ne maanaam parti bi parti diw la xam nga buñu demee ba ñu naan parti bi parti diw la parti bi parti diw la maanaam dafa mel ni lu moom la di ko dugal ci poosam ak a génne di ko poos kooku bu mel noonu bu amee parti bi parti diw parti amul sax tur yoo xam ne tey ji moo la ko waxoon tey du ma tudd kenn nag waaye am na tur yoo xam ne moo la ko tuddaloon tey muy turi parti wala turi nekk ab leader bu ñu wax ne mooy mooy ko jiite doo ci xam kenn ci ñoom parti boo xam ne yow mi nekk journaliste xamuloo ko yow te xamuloo turi parti bi xamul borom kañ wax ne moo jiite parti bi mooy ne loolu dootul parti maanaam ñu ngi ko boole ci lim bi rek waaye bokkatul parti léegi nag ñii nga xam ne ñoom dañoo ñëw toog fi noom am fi place ba siiw lool dem ba kanam ci biir am ñeneen ñoo xam ne dañu wax ne kat ñoom d'accord ñu yëfi di doxee wala boog am na tànk yoo xam ne ki nga xam ne mooy jiite mu ngi koy teg ci ñoom d'accord ci jéego yooyu boo ko waxee ñu dàqali ci parti bi wala ñu xatal la ba nga génneel sa bopp yooyu yëpp boo ko xoolee mooy la ñuy jàmbat waxu démocratie démocratie mooy am sañ-sañ ci biir nga li nga xalaat nga wax ko li nga xam ne moo jàpp moo jàpp ne moo gën nga wax ko bu fekkee ne loolu mënatoo ko am mooy ne kon démocratie amul ci parti boobu bu démocratie mooy jur léeg-léeg nga déggoon ne kii waaye tamit di génne ñan la parti kay liñ ci doon xam mooy dafay am ni maanaam euh, li ñuy wax ay congrès dafay am ay ndaje yoo xam ne dañoo aw na kii kuréel gu rëy rëy la ci biir parti bi ñooy dajee def yi waaye loolu doo gëj nga ko dégg maanaam man da ba boog laa xam ne congrès wu parti daa xamul kañ laa xuuja dégg parce que loolu ay ci nit juróomi nit xëy na ñooy dajee xalaat li ñu xalaat d'accord ci topp ci kaw diw diw mooy chef parti bi moom moom moo sos parti bi kon moom moom parti bi comme moo ko moom nag juróomi ay juróomi nit déggal nañ ko fukki nit déggal nañ ko ñooñu ñoom saa bu ñu waxee nga foog ne junni nit moo fa ne wala téeméeri nit moo fa ne fekk na boo demee juróom-ñaar fukk dogg lañu léegi nag loolu boo demee yow mi nekk ci boor juróom-ñaar fukk yi te àndatoo ci bés boo génnee mu feeñ coow li jóg ñu naa ah, parti sàngam mu ngay yàqu wala parti mu ngay néew doole te fekk na parti bi ne mu sànne mu fa ne parce que ni porte parti yi ba demee moo tax ñun bu fekkee ne dañuy wax rek ji Sénégal ñii wote ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp boo leen dajalee à peu ay 4 millions de personnes ñooy wote bu fekkee ne bëri nañ dool 4 wala 5 millions 4 millions yi bu wotee kan la wotee ñut ñoo xam ne ji déggoon nañ leen seen tur waaye boo xoolee ñi ci ci ñeenti ci ñeenti millions yooyu ma la wax noonu na ñooy wote ñi ci bokk ci ay parti bëriwul dañuy wote ji rek parce que wote jot na rek ñu dem wote ji mais bu ñu paree seen yoon nekkul ci parti jéemu ñoo xam kii mooy kan sax jéemu ñoo xam programme am donc boo nee ne parti yi bëri na ñoo bëriwul yëpp daanaka wàññiwul dara ay tur daal moo fi ne ak nit ñoo xam ne boo demee ba bu ñu jubóot ak yow ñoom juróomi nit ñaar wala juróom-ñett fukk ñu àndee jubóo d'accord bu ñu jubóotul commencé génne ñenn ñi buñ la génnee yow tamit da ngay njëkk a def mooy nga dem di benn bés bu yees mi ngi nii ñëw yokk ci limu ñetti téeméer ak lu teg ci ay parti politique fii ci réew Sénégal ndax xam jotul fu mu nekk nii nag ñu di réglementé mbir mi daal càmbar création parti yooyu lee ak seet ndax sax ñi ngi wàccoo ak réglementation ak it li nga xam ne mooy yoon ci mim réew. parti bu fekkee ba dañ koo soof am luñ ko luñ ko wax ne ko nii nga war a doxalee. li doxalewu ko. am na ci loo xam ne sañ-sañ jaaroon na fi mënoon mënoon nañoo seeyal parti bi waaye nag comme boo waxee waxu seeyal dafay am ay jafe-jafe parce que booy seeyal da seet yoon bi kii wàcc na ko na nañ ko def mais comme kan tegul ci yoon bi kenn yoon bi kenn tegagul nag booy seeyal kon xanaa kon da ngay njëkk kenn nag nga baleen fi léegi xam ne ji wate dikk na ñu jaaw la nga am ji feneen parce que am na ñoo xam ne mosoo leen dégg wate fenn am na parti yoo xam ne yow tur bi sax ko dégg yow li ngay yàgg yàgg ci journalisme xam-xam yi ci am yëpp am na turi parti yoo xam ne mosoo leen dégg am na turi leader yoo xam ne mosoo leen dégg xam ñooñu xataluñ kenn léegi nag am ñeneen ñoo xam ne ñoom ñu ngi fi naa waaye mosoo leen dégg fenn fu ñu bokk ci élection ci seen turi bopp déedéet langaamu langaam rek li li keneen doon wax ne naka lañ koy waxee xaw ma yóbbaale ma yóbbaale ma yeeg bu bëree yóbbaale ma yóbbaale ma ah ñi ngay yóbbaale ca lay yóbbaale moom fu mu la soxlaa lay oowe bu la soxlaatul sànni la comme meeting xeewi na maanaam meeting yu rëy rëy doon def nga xam ne gars yi dog déggatoo ko fenn léegi kan moo ko fi desee nguur moo ko fi desee parce que ñoom ñoo am moyen yu fay kii fay kii joxe fi ay xaalis joxe fi ay t-shirt ci nit ñi dajee buñ dajee ba ci bi ñëw rek toog bi am benn meeting boo xam ne ci candidat Macky Sall moo fa dem ba meeting euh, stade bi fees dell ca début bi dañu dem ba ci digg moom balaa muy commencé xam pare sax nga gis stade bi commencé mooy ñan mooy ña ñëwoon parce que joxoon nañ leen dara ña parce que digoon nañ leen dara ña parce que bëggoon nañ dara léegi bañ ne bon léegi daal feesal naa leen sa stade léegi mun naa ñibbi lekk Bakhoum maa lay sant di la gërëm. gërëm la bu baax a baax Amadou Moustapha Dieng Ibrahima Bakhoum moo nekkoon suñu gan tey ci li nga xam ne rek moo di bloc d'information bi lay fi mu ne ñaar fukki simili benn moo tegu ci juróom-ñetti waxtu.